yàgguma ci sëy bi damaa dem rek ñibbisiwaat maa ngi nii sunu kër. mën nga ma leen jox ah? liggéey. waaw ah. Ousmane oh. affaire yi ci luy baax la. Mmh. amul ruq buy sedd aawo yi dañuy tooñ ñaareel dañuy tooñ mais mmh. tooñ yi ëpp mmh. en tout cas aawo yi ah, mënuñoo supporter danoo siis mais ñaareel yi mais ñaareel dañoo mën a dañoo mën a cokkaas tooñ kenn ñaar dañoo mën a sos de dégg naa ñoom dañoo foo kan ñaareel yi dañuy signaler dañuy signaler bàyyi leen xaritu jëkkër bi ñu def seen bopp dañuy signaler gauche jàdd droit waaw léegi léegi léegi yow léegi yow sëy ay feem la rek ma jël ki ci ligne bi ah feem ba ci sos non du sos ay kii rek xam nga rek allo <laughs> am si di neena ma benn laay. tey nag du ma oustaz ngeen xam tey du ma oustaz waaw duñ ah, ah, na nga de waay Fall waaw na nga de. ñoo ngi bu baax. Ah, xam-xam bu sell bi. waaw moom daal ñetti borom xam-xam daal la fi nekk. waaw ñu ngi ñu nekk fee bu baax seek. réeróo lañ koy yàlla. nam la bu baax seek. <laughs> yàlla jubale leen ak seen patron. jubale leen ak ñëpp rek. ay waay amiin waay parce que rajo boo ci wax. Hmm. da nga ñëpp bëgg la. walaay ndeysaan soo waxee ñëpp yow nga te foofu ay borom xam-xam rek a fi nekk. walaay dëgg hmm. la. waaw ah, si génn léegi li mu wax laa d'accord góor ñi boo góor ñi boo ah, maanaam wujji boo ko amee bul sa jëkkër. ndeytale li mu wax papa nee na d'accord na ci dëgg la bu leen mm. déglu. mais yow itam dañuy jaxase. nee nga sa papa nee na boo amee aaw takkal ko ñaareel. nee na tànk mm. takkaloo ko ñaareel doo xam jikkoom. waaw mais man. bu mu jigéen ñi ñoo ñu gën foofu fuuf. jigéen ñi ñoo ñu gën a. Ah? Mm, fuuf sax moom dafa bëgg jigéen ñi macha allah. góor goo góor gu bokkoolee jabaram kenn léeg-léeg mu dee boppam. mais day day day dee papa day dee. waaw nag léegi góor ñi ñoo war a muus. ak ko. góor ñi ñoo war a muus boo amee ñaari jabar ñetti ñeent. Mm-hmm. ñoom ñëpp da ngay fexe ñoom ñoom ñëpp da ngay am a ñoom jàmm. dëgg la. Mm-hmm. yamale ci gis-gis da ngay a politique. waaw yamale ci mm-hmm. gis-gis. waaw nga leen di neexal jàpp eh, eh, eh, jigéen boo ko takkalee ñaare da nga ko war di neexal bu baax. papa waxatal li ci kaw. jigéen boo ko takkalee ñaare da nga ko war di neexal. waroo tàngal xolam di ko génn kër gi. déedéet da nga ko war a neexal. Sénégal nag lii fi am boo koy neexal mu laaj lam bi segg mais meewu segg nag nga dem uti meewu segg ndox ko meewu segg ah d'accord aajul sa bopp mm. boo ko bokkoon ak kenn looy def ay bu yàlla defoon góor ñi de am mujj waaw <laughs> waxu ko fiir la rek loolu yëpp waxu ko fiir la ah, xam yàlla programme xam yàlla wàcc ni yéen borom xel yi yéen lay waxal moo mm, mm, tax ki jàng ba pare daan am euh, boroom jàng ba pare daan am xel mm-hmm. na jëfandikoo xelam. Mhm. ci kaw li yàlla wax ci aaya bi. dëgg la. Mhm. waaw. bépp góor bu bokkoon a jabaram kenn léegi mu rey boppam. papa da na jigéen. papa yow kenn du yow takkale wujj. Mhm. danga ko war a neexal. ko war a neexal. waaw waaye ne takk jaba takk takkal ko wujj ba pare mu nekk sa aaw mu nekk mag. am daa doo dugg néegam. loolu loolu loola fi bari. wallaay gi ak takk ñaari génn sa aaw waaw. te normalement ba kenn ngeen di génn àdduna da nga ko war a jox dépense. wallaay dëgg la. même même tey doom bu ñu la waaye tamit yooyu yow dugg néegam. Mm. waaw léegi nag moo tax euh, yàlla moo naqare xam. wallaahi dëgg la mm-hmm. ndeysaan nga mën a jàng lool. wallaahi dëgg la mm-hmm. Seydou. yàlla ne la taqulu ma tafa lan moo tax li ngeen di wax. taquluna ma la tafaalun kabura mm-hmm. maqtan inda an taqulu ma la tafaalun kon nag loo bari xam-xam. ak lu nit ñi dar dar sa sa jabar ak say doom. Ah. boo sagun sa jabar mën na la yóbbu sawara say doom mën na la yóbbu sawara. ci kaw li nga war a def. Ah. jërëjëf papa kontaan nañ ci yow. waaw sama ñaari gars yooyu maa ngi leen di nuyu. delloo nuyu baax. moomu nu may moom li ma ko wax rek bu ko neexoon bañ a liggéey. Ah. waaw waaw di ndaxte moom am na xel. macha allah euh, muy mbindum alaaji ma li mu ci mën a wax bari na. te kon dañu koy teral mbindum Sëriñ Tuubaa li mu ci mën a wax bari na. te kon dañu koy teral. tarkaal waaye nag. ah, ah, ah Pa Ousmane moom nga defe ni jàngul jàng na de. ah loolu loolu jàng na de. borom xel la loolu kay kenn déggul ni Ousmane Diago waaye baax na ñu ngi lay mel ni téléphone bi gis nga gaa yaa ngi songandoo ligne bi démb rek am na ko may nettali ndaw si dafa nekk terme awo bi mi ngi en terme jëkkër ji di ko génnal mu woo ma ne ma ma daal ma ne ma yaasay daa ndax ma génn wala ma génn sama borom kër sama kilifa toog na fii ñaan ko ba sonn pour ma may ma am doom ci kër gi mun na ko génnal parce que dafa takk ñaare ma ne ko bul génn. waaye kooku baadoo bu ku la lànkale toogal yàlla sax dafa ni soo fasee jigéen na toog ci kër gi bu leen min xay sakantum wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhinna waaw mm, mm, mm. mu waxaat feneen ni wala yaxrujna illa an yatina bi faaxishatin mubayina wa tilka xududullah mu ne jigéen gi moo même boo ko fasee dafa war a toog ci kër gi jàppee ay daam ba mu mat xanaa moom mu nekk ci kër gi dafa def lu bon ma ni ko dee leen am fu la yéen jigéen ñi lànkal boot ku la lànkalee bul génn bu la diiree nag mbaa mu gaañ la dina xam ne réew mi am na lu waax bu nekkee am na ku ñëw ngeen jox ma ko jël leen dafa mel ni dafa mel ni jigéen ñi dafa bëri dafa dafa mel ni dafa am ñu bëri ñoo xam ne ni amuñu kilifteef wala amuñu ay mbokk wala amuñu ay càmmiñ wala lan la góor ñi seen dof dof lu gi dañ leen cee wàcc xool ko ak ëmb ba nekk enfer Ousmane nga ko nga ne ko génn moo tax gis ñu yàlla may teraanga yàlla ñu yàlla may amam tam tam dañu am fulla gis nga jigéen ñi ku leen mayee nañ bàyyi baatu mayee kuñ leen dénk nañ ci teg suñuy bët lu am solo maye ga dañ leen koy wax waaw may wi ne dañ leen a dénk suñu noppa ngi ji si génn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko te dee fa dem dee ko wax ne kii am nay mbokk Sénégal ku ñu xam ne am ngay mbokk ñu teg la ci condition mais mais mais mais Mohamed foo dëkk location si foo loué rek ab gendre mu tey mu seet si la ëllëg man maa ngi nuyu adjudant Faye fàtte naa fàtte fay ak gendarme yëpp gis nga bu ñu seet normalement wala ñu xam ne yow mi daal borom loxo bu gudd koñ dëkkoo fa ñu ne ñu ko jiñ li dëmm la ñu njëkk a jiiñ. dañ koy tooñ jiiñ dëmm waaw dañ koy tooñ. Mhm. amuñu nang lu ne dañ lay yàq. mais mais mais balaa may jël di ci dama lay laaj. Mhm. Mouhamed tey jigéen ji nga xam ne sa jëkkër gis nga mu mu sa sa wujju sa aawoom. Mhm. dërëm ñaar dërëm ñett dërëm ba mu toll fii mu ëmb ba nekk en terme mu ne ko génnal kër gi yow ñaareel bi est-ce que yow waroo xalaat kii nga séqal ndax nitu yërmaande ñaari baat parce que li ci sa kaw morom ci nga war a jaar. sama crédit day jeex allo. kon kon kon kon ma jël ko balaa crédit bi jeex allo waaw allo yaa sey daal. soxna si def. maa ngi fi. maa ngi ci jàmm. waaw xam naa yàgg naa si ligne bi rek. mais dama ngi jégalu. allo. yow rek lañuy ñuy déglu soxna si. ma ne damay wax ne. kontaan naa si seen émission waaye ñu ngi wax ne ñun ñaareel yi waa Rufisque ñun tëngee ñëpp suñuy ñaareel. waaw wax ngeen dëgg waaye da ngeen. adhéré nañ gëm bopp. waaw ngir ngir moom it day daal. ah waxaat ko. eh bu mu génn de. ñaareel la. allo di ngeen seen wax mun mënut a egg. allo ñaareel bu baax de. ñaareel la ñaareel maa leen di waxal ñaareel waa Tëngéej yëpp maa ngi leen di bége macha ak ñaareel yi nekk. tudd na ñaareel bu baax de Seyda. tudd na ñaareel bu baax ñaareel la tudd tudd na moomi gay dani moomi mel waaw waaw moom jikko yu aawa la yor moomi ñaarale mi jikko la yor da dafa am ci góor ñi ni mu amee ci góor ñi noonu la amee ci jigéen ñi mm-hmm. dafa am jigéen ñoo xamante ni bonuñu mm-hmm. mm-hmm. dañoo xamul dañoo xamul mooy dafa am ñu góor góor ñi ci góor ñi bay génn sa jabar mu am la noonu la amee ci jigéen ñi bokkul ak léegi léegi topp seen bànneex nga a nga lan la mais topp seen bànneex la ah. jigéen moo war a yeewu jigéen moo a yeewu parce que wax naa la lu olof day wax ni lu bees neex ba mu des bàmmeel man la moytul bàmmeelu ku jëm aljana moo raw lu mën a doon ci àddina mais dama la wax ni la hmm. ki ngay takk ñaareel hmm. ah,